coronavirus mu jóge fii ci Nabi Mengakap dan pulang kesadai Kon kanyi baye la rek julli ci Muhammad sallallahu sallam ñaan yàlla lu ñu yor rek ñu bokk nit ñi naramta lu ñu ko bokk ak nit ñi yàlla bu ko yàlla may ndax boo juddoo ci lu baax yàlla ci ñu baax soo deful lu baax di nga jaaxal nit ñi loolu moo am man nag damaa mënewul wax gis nga bu xew amee sax su ma ànd ak Mbow moo may waxal li ma war a wax yépp waaye ni ngeen def moom tànk yu ñu kontaan lañu bu ngeen seetaanee kayaar bërki démb bannaa sama doom mooy directeur bi muy sëñ Diallo seetaan ngeen ko barki démb hmm. Thiès démb la fa yóbbu ay teraanga ci gouverneur bi hmm. sant yàlla rek la nag hmm. ndax am nañu ko bëgg a def te mënuñu ko kon nag soo ko manee yàlla xiir la ci nga di ko def dañoo war a sant rek mën de lépp loo jëm ci diine wàllu sëñ Touba wàllu Alaaji Malick mii ñu ne ci dëkkam bii te suñuy ndey yëpp nekkoon ci suñuy baay ñu ngi ñaan yàlla luñ ci woote rek ñu fekk leen si càmm ba lu xew meer kenn mbow li ma daan defal sama yaay Xadi Jóob di ko defal Ayda Mbow lu ci xew rek dama ko naan loo ma ci waxul baalu ma la ko ñaan naa ci yàlla ànd ak ñoom kër sëñ Tuubaa noonu léegi nag sëñ Jàll moom su ñëwee su neexa yàlla dinaa ko wax ñu ñëw ngeen fi lu mu ci war a def soobe yàlla dina ko indi ba sa yéen mu defal leen ko man mi fi nekk itam maa ngi kàttanu yàlla yal nañu yàlla jàppale musal ñu ci am ndog seen ah, loxo jotul sen ginnaaw donc tey jii ñu seet si woon ko moom mu nekk koo xam ne am da koy ñaan yàlla di bokk ak jaam ñi rawatina comme lii nii parce que mi ngi wax ni doomam mi ngi dem fee dem fee dem fee kon xam naa daa ak séegul ndax moom taraangaa ko ñor joxe ko moo ñor kon soxna bàjjen Ndeye Dieng mi ngi nii toog rajo Dabaax seet si woon ko bàjjen lan ngay wax ñi nga xamante ni ay bonne volonté lan pour ñu jàppale ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw loolu moo war sax fekkee tane nga ay jullit comme yow te li ñuy dox yëf diine la yëfu lislaam la jàppale nit ñi la loo ci mën nga def ko ci wàññiwul dara ndax li nga denc moo moo ko li nga jox julliti yàlla yi rek loolu nga moom kon nag ñu ngi ñaan yàlla lu ñu yor rek yàlla nañ ko bokk ak julliti ci barka yonent bi yéen ñi koy doxit di ndaw yàlla na leen yàlla jàppale def leen ngeen di ay mag tey mag yu am dara ci barka yonent bi boolo mu jóge fii ci Sénégal nañu àndandoo chez nous. Lavons nos mains régulièrement ñu ngi leen di nuyu lu bëree bëri di leen ziyaara di rafetlu seen taxawaay ak di rafetlu taxawaayu ah, Dabakh ah, FM lu am solo la ndax maanaam moom di wër. Euh, pour di def téléthon pour ñu am lu nu jàppale way néew ji doole loolu ndénkaane borom bi subhaanahu wa taala ndax borom bi subhaanahu wa taala moo digle ñu jàpp lente ci way ñàkk yi kon du ngeen jógee di taxaw ci loolu loolu day doon lu am solo loo xam ne nii moom dañ koy rafetlu rek di leen ci encouragé incha allah du ñu tam leen say sànnee ko si ñëw rek di leen ko ci jéem a def ah di ñaan borom subhanahu wa taala jëlee fi lii balaa bi incha allah ñu ngi leen di siyaar bu waaw ñu ràññee ci sa waajur mu nekk ku baax tabaarkàlla di dimbalee doomu aadama yi te xam naa ni kii mais kontaane nan la bu baax a baax tabaarkàlla lan ngay wax ñi nga xam ni ñu war a mën a dimbali askan wi la ñu te boobu ba léegi ñu ngi toog di leen xaar. waaw loolu moom incha allah na moom na ci ñëpp jàpp jàpp rek ah. ndax maanaam moom dimbalante ah. yàlla moo ko wax. dëgg la. c'est comme yàlla moo ko wax nag ah, kon na ci ñëpp taxaw rek incha allah ñu ngi leen di ziar lu bare bëri salaamaaleykum wa rahmatulah. barakallahu jërëjëf. Euh, maa ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp waaw. dëkk bi nag fi mu toll instant yi moom. kenn ku ci ne li nga yor dang ci cee ciof dimbali parce que ñun Afrique mom solidarité rek mo ñu war parce que dekk yu neew doole lañu dekk nak bu fekkee ne dañ neew doole ñi nga xamni ne denk na len dara kenn ku ci na nañ ci ciof joxe bo joxe joxe sa morom ciof joxe bu yagge mu nekk dara quoi wa vraiment man daal loolu lay digal nit ñi dal wa donc Modou ma gis ni da nga nekk nit ko xamni ni Tamba nga dëkk ah. say wayjur fexe nga ba dëkkal leen tabarkàlla yàlla dimbali na la orienté nga sa njaboot ba ci man mii di liggéeyee Dabakh FM léeg-léeg ma ñëw sa kër fëgg bunt bi indil la problème ne la da nga may jox boo ma joxul sax bu ma yeexee génn soxnaam jox ma ma gis ni actuellement ñi nga xam ni amuñu sax njëgu madaar wala gel wala ordre sewel bu ñu raxase seen i loxo te am nga yéene jàppale leen wax ñi ci des ñu jàppale leen feebar bi moom euh, ni daal di ma ko gisee mooy kenn ku ne nga jéem a moytu quoi moytu waaw moytu bi moom mooy euh, xam fi ngay dugg xam li def waaw saa yoo xëyee nga raxas say loxo ba mu set xam nga looy def daal nga raxas say loxo ba mu set daal man daal loolu laay digal askan wi daal waaw ñu delluwaat ci yàlla rek ñu gën a jaamu yàlla. buñ ko defee rek feebar bu mën na fi wax ji nag mënul sori foofu laay mën a yem xam naa ni ñu delluwaat ci yàlla di ba moytu tooñante jéggalante gën a jaamu yàlla di jàng alxuraan di julli yàlla mën na fi jële feebar bi loolu bu ñu ko defee rek feebar bi jóge fi man loolu laa am ci lu may wax nañ loolu nañ nañ ci nañ ci fagaru luñ luñ mën a mën a man ay wax ji moom du bari ndax mën mënewuñ wax quoi. jërëjëf sëñ Mor Xabane sa barke turandoo jërëjëf. ñoo ngi fii nag ci bitigu Baye ñedd bitig boo xamante nii kenn lam-lam meetu ko ci Daaru Salaam ñu fekk fi doomam xabbaan muy nit koo xamante ni ku xam teraanga la parce que bi ñu ñëwee ne ko première radio scolaire du Sénégal Dabakh FM dafa organiser wu ngir jàppale ñi nga xamante ni ñoom la seen loxo jotul seen ginnaaw ci jàngoro ji di coronavirus ñu war leen cee ndaxte ku ne xam ne ne Tiwaawoon euh, dëkk bu am ginnaaw la waaye ku ne xam ne ne Tiwaawoon dëkk la boo xamante ni ñi nga xamante ni seen loxo jotu fi seen ginnaaw ñoo ëpp waaye su boobaa ñu tàllal loxo ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci rajo yi mën a waxal man leen a defal lépp ñun su boobaa ñun ñoo leen di waxal ngir ñu mën leen a jàppale waaye fekk ji ñi nga xamante nii nag suñu demee ci ñoom ndaxte ab jullit amul lu dul yaakaar tey nag ñu fekk fi ki nga xamante ni moo di xàbbaan mu génn ñun ni ci teraanga nee la tey bu wàccee sax jaratul ñuy xëy ndax ñaari carton eau de jox ñaari carton madaar ñaari carton saabu xam nga ne kooku bëggul kenn am li nga xamante ni moo di jàngoro a ca waar wa te ku daanu ca waar wa na wàcc nga te bitigu baay ñeddi bi lii rek lañ fi xam ndaxte daaru salaam ba daaru salaam daj li mu fiy def rek moo ëpp lii kon bu ñu ñëwee mu def lii dañ naan ni mbattu dellu na ca ndaa la kon nag dañ koy ñaana lu man ren rek yàlla na ko man déwé ci barke Seydina Muhammad ma fekk fi nag ki nga xamante nii lu jiit njaagate mooy njaag ah muy sama borom kër alaaj ma jaw njaay <laughs> jërë ngeen jëf naa rek ñu daal leen di jox dig daje demaat ci yeneen i boutique incha allah jëlee leen la nga xamante ni nag euh, moom la ñu fas yéenee waxanteeg euh, ñi nga xamante ni moom la ñu séq ak ñoom ndaxte kat digee bor la te dañoo wax auditeurs yeeg auditrices yi ne leen lépp loo xamante nii rek euh, am nañ ko ci premier rajo scolaire du Sénégal Dabakh FM day leer naññi te dañ koy delloowaat ci askan wi su ko defee rek lii lépp nag ñi nga xamante ni ñoo ñuy déglu ci Dabakh TV wala ñu ñuy seetaan ci Dabakh TV suñu mbokk internet yi ñu xam ne lii lépp dafay delluwaat ci ñi nga xamante ni ñoo di jaamu yàlla yi waaye surtout ñi ko yàlloo

kat nga la jëlal mouchoir raxas sa loxo boole ko assalamu alaykum ñoo ngi leen nuyu waa rajo dabax di rafet lu li ngeen def ndax nañu tang wi ku bàyyi sa iya, soxla yëpp nekk ci pour mbir mi xew nga xani aduna àdduna ya, la yëngal yalla nga ci def sutur nak yalla na yokku ñu ngi leen di sant leen gëreem bu baaxa baaxa baax man rajo Dabaax fa laa bokk ca ña ko sant la bok ban koy ya defar man mi mako ko karole ya def lepp lépp jàppale leen ci te yàlla rek tax Ah, kon xam nga ne naa ci dinaa ci sawar incha allahu demal naa fa te dinaa fa jaaraat incha allahu ma demee gis ak directeur bi ñu bokk toog waxtaan ñu def suñu action incha allah kontaan nañ ci lii ngeen def loolu yàlla na fay leen lool daal lañ ci doon sànni di leen sant bu baax leen gërëm di leen ñaanal. mais lan ngay wax ci actuellement ni ñi nga xam ne ay bonne volonté la ñu war a mën a jóg jàppale askan wi boobu ba léegi bon ñi ngi woote mais xaaraguñu leen ci lenn loo liñ ciy wax mooy di ci kontaan rek di ci kontaan rek te fas yéene cee dugal suñu loxo bu baax a baax a baax a baax ci kàttanu yàlla te di leen ñaanal incha allah moom daal wax ji li bari bari mooy nañu ñëpp jóg rek jëf wax incha allah te fas yéene leen ko noonu soob yàlla di leen fa àgg ci kàttanu suñu borom.